ambe ya kalamutala nung abe nung a parliamento tole abe doku a je abe doku mi a ke kan doku mi yalan ko min ko akuma ya tabakele ando hani bi a gambe nol be a fenteng anyum fo akala akala doku a nyin anen tenku kono ala diamo kono ay fem fo je kay tan disappoint tabakele ala disappointment no aya sota karo min na a wala mo nyinti ko min ko bayring ambe ya kalamutala ko a fitinola be keri ning a ah, mi yalan komin ko am ñing aye a foñin kol am e ka fo mi foñi kansala an ah, kol aye ma bakele a ah, woto ataya jiki komin ko uh, what was actually expected uh, from the president of the republic of the gambia wala mo ñinti komin ko aye simfa data uh, ñing aye plan sol ke ka jube komin ko wo molbe ma koy no la nyaadile wala atabe futano la wo mol ma nyaaming uh, he was actually disappointed bira nyaaya je komin president adama baro ñin tola e ka fo miye komin ko ñin a ah, la a ah, fo ñin kammala ñin a ah, diyamuta wo diyamo kono ana hana ka ñin statement o ñin foje ka fo komin ko a sidia ñanta pour que retaya le ako a ñin ya molbe la komin ko président o ñanta la pour que sim fadata ay diyamo problème ol la barin a président o ko a ñin président a ñanta pour que min ke a ñin ngamera abe dol ke kan na barin jam kujamal be jele mi yalon komin ko ada sata bakele a sako kuwa mi yalon komin ko abe dending a foñi kansala nkolla kuwolla because ibaw imu gambia non lati and their life matters their well-being matters and donc a gambia president o a anala cabinet members wol momi yalon komin koy ba koma e ñanta pour que ñing a, a simfa data la pour kañi a honorable halifa sala ye ñim fala statement o kono um, ñim birabe ale nikuya yitandi kan uh, towards statement mi yalan komin ko the president of the republic of the gambia yafo about syria jata min mu uh, pdois añen candidate ilafta pour ko min londi uh, from uh, willi uh, west black mm-hmm. mu nekk lu am solo bala ngay taxaw di wax waxi candidate as a president mm-hmm. yow sa dëkka Gambia foo ñu is in Gambia we all know that we are mm-hmm. torox ñu soona ñu ngi tiit ñu ngi daw you did you you did not make any effort towards them ngay lijjanti affaire politique what do you think they also will think how they will react everybody is talking ñëpp a wax ne président Jammeh do not uh, take care of uh, these people fooñi uh, président sorry Barrow which is truth my dear naka nga mun a seetaanee waa fooñi fooñi ak Casamance benn la yow xoolal Casamance suñ saanee seen awma ma la or whatever daf dee taakal aala bi foofu noonu yëpp di ñëw seen boor koo ci gis mu ngi omba seen yëre yi seen sponge yi with whatever you know very sad ñooñu ñeme ñetu ñoo taal tooga seen kër yi ñu tooga ñëpp a ngee daw so moom dafa war a def effort foofu ñu gis ne génn na wax ak nit ñi dalal leen yónni fa ay militaire ñu gaat leen wala boog mu ne ok kaay leen ma génnee leen moom am na ay kër yum sampa di ko luye mu dugal fa ñooñu sax am ñu fa dugal ñoo xamante ne xëj na ñoo gën a jege àll bi sax you know with many other things fii am na hôtel yu bari ñu ngi fi mhm, mun na koo rent mhm. dugal leen fa pour few months ba lii dal mhm. understand nga he can do that honorable Halifa Sallah suñu waxee rek ñi dañ war a wax parce que dañ mer loolu moo tax xam nga mu ngi wax ah, si statement bi ne comme xam nga ah, waxul ne comme xam nga nekku di def dara towards that waaye moom dafa foog ne still now xam nga dafa des a lot I ah, could have been done to see how best those people can actually be supported because um um, comme que dégg nañ information bi ne comme xam nga um, Sénégal um, opération xam nga bu gaayu loncoon ne comme um, those um rebels seen camp bi xam nga destroy nañ ko and some of them actually died Why still now nobody actually knows that um, that ne um, ndax it is actually what really happened whether their lives uh, can actually uh, be protected and saved just like the way it was then as a country um, Ngamira Kominko the president of the Republic of the Gambia and uh, the other people should have done a lot about that as Halifa said woto nga kibaro nying nga mil sotale bi purun nal ya kacha mi yalon kominko abe dending banko la ka famiye di Gambia media the smiling coast of west africa uh, from sahel network tv angangina uh, sotale bi woto mbesero di la la mba falale komin ko uh, alama man satalla ye tilo boy a uh, bayra e fano nyima uh, juma mubarak to each and every one of you out there and on the follow us all mi yalan komin ko kana programme follow mbe tentula mbe jayla mba falale anye eh, eh, mba falal be ye komin ko al continue de ram pour kana follow because uh, you are encouraging us and also you are supporting us in another way around and continue to like our page and also to share our videos. Uh, I am Black Queen from Sahel Network TV in this noble platform today with Sister Linge. thank you so much Black uh, rafet na macha allah <laughs> uh, sant ak ngërëm ñeexal na ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñi topp ci li nga xamante ne moom mooy Facebook bi ak YouTube bi <laughs> fàtte wuñu leen benn yoon ñu ngi leen ay sant di leen gërëm bu baax <laughs> dëgg yàlla di wax ne nañ ci ànd bi nga xamante ne yéen a koy ànd ak ñun ku ci mel ni DJ Fee sonnul benn yoon saa buñ jógee rek mu jóg ànd ak ñun wax dëgg kontaan nañ ci moom uh, Ansoumana Yaabo yi tamit moom tamit suñ follow wala kontaan nañ ci moom bu baax ku mel ni Esdam Wilane suñ follow wala moom itamit kontaan nañ ci moom bu baax ak ñeneen ak ñeneen ñoom Fatou Maas yéen ñëpp wax dëgg yàlla Aliou Niang with orders mhm. wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yéen macha allah euh, ñu ngi wax sant ak ngërëm ñeel na leen lii nag lañ leen amaloon tey ci àjjuma bi mhm. euh, di leen jox dig daje ba loon di incha allah di leen ñaanal weeru kooru jàmm mhm. ñaan yeen nañ ci dugg si bisimilah gën ci si alhamdulilahi rabil alamin di wax nag yéen ñi nga xamante ne yéen yéen a nekk ci àddina bi moo xam ñu ñuy seetaan moo xam ñu ñuy seetaanut moo xam ku ma xam moo xam ku ma xamut maa ngi jéggalu ñëpp di leen wax baal leen ma ax képp koo xamante ne tooñ naa la yëg naa ko yëguma ko maa lay wax nga baal ma axa lillaahi wa rasuuli